mooy euh, xanaa di euh, sant yàlla di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant di gërëm euh, daayira ansaaru malikiya te monsieur Serigne Saliou Sall jiite ko di leen sant di leen gërëm également moom ak ñi mu àndal ñëpp ci li nga xamante ne def nañ ko pour comité bi nga xamante ne moom la ñu jiite muy commité locale euh, pour la protection n'est-ce pas euh, des personnes wala commité locale de gestion des épidémies bi nga xamante ne ñun ñoo ko jiite. Euh, gannaaw loolu ma bëggoon a wax rekk ne mbir mi bi mu amee ba léegi ñun tooguñu euh, ñu jàpp ne également xeex bi du xeexu état kese te itam du xeexu benn nit ku ci ne fa nga ne. war ngaa mën a mobiliser wu ngir xeex li nga xamante ne mooy jàngoro ji donc euh, mbir mi euh, mobilisation individuelle la mais également c'est une mobilisation collective euh, individuelle parce que képp koo xamante ne également yaa ngi ci sa kër war ngaa jëfe li nga xamante ne mooy consigne d'hygiène yi nga xamante ne joxe nañ ko muy raxasu ndox ak saabu ca kër ga euh, mais également ñu respecter li nga xamante ne mooy distance de sécurité wala distance sociale bi nga xamante ne moo war a nekk sunu diggante comme ni ñu ko defee nii euh, beneen bi itam mobilisation communautaire dafa war a am euh, ci dynamique boobu la ñu ne wax nga ko léegi ñi ngi woon ci suba si mairie Thiès Nord di maire doon def benn don au niveau des population mais fii tey Euh, euh, daayira ansaaru malikiya ñoom ñooy jébbal don comité bi nga xamante ni ñoo ko jiite ndax dañu jël ay mesures ñaari mesures euh, ñu dajee commerçant yi parce que daayira bi ci biir marché bi lañ ne di fa yëngatu di fa jaay ay commerçant lañu ñu dajeek ñoom waxtaan ak ñoom ci ñaari mbir parce que naam tey mënuñoo tëj marché bi parce que dana xaw a jafe Euh, ci ñun ñu tëj ko bu ñu ko mënoon tëj dañ koy tëj waaye bu ñu ko tëjee itam dafay indi ay jafe-jafe parce que ñu bëri fii la ñuy daanee seen doole nit ñi aussi fii la ñuy utsee li nga xamante ne euh, moom la ñuy lekk donc euh, fii ñu toll dañu nu jafe ñu tëj marché bi waaye bu ko aajoo itam fa la ñu jëm danañ ko def waaye comme àggaguñu fa ñu xalaatoon ñaari mbir pour def ko gannaaw bi nga xamante ne euh, monsieur le président la république son excellence Macky Sall jël na wala décrété na li ñu naan état d'urgence euh, ñu wax ci également bay sunu waar ci wàllu woowu nag ñu décider ak ñoom ne marché bi bis ni ki tey à partir de ñeenti waxtu lay tëj chaque jour donc dootuñu dem ba ay Euh, juróom-benni waxtu 18h wala di ko tëj 20h moom waxaale wuñ ko parce ak couvre-feu bi nit ñi ku ci ne 20h na laa mën a fekk sa kër. donc bis ni ki tey marché bi bis bu ne ñeenti waxtu lañ koy dakkal euh, beneen bi mooy euh, suba ci àjjuma ji bu soobee yàlla. njaay du am ci biir marché bi li ko waxal nag liñ ci bëgg mooy dañoo bëgg Euh, lënkaloog ñoom ba nettoyer marché bi parce que marché bi ni mu mel itam euh, jaaduwut ñu nettoyer ko gannaaw bu ñu ko nettoyer nag ba pare euh, ànd ci ak waa service di d'hygiène ñu daal di pomper ba nga xamante ne mic virus bi nga xamante ne moom lañ naan Covid 19 ñu mën a wàññi ni nga xamante ne noonu lay noonu lay lawe donc bi ñu waxtaanee ñoom nag euh, mbir mi nekkul loo xamante ne également lu yomb la parce que dafay nécessité ay moyens euh, ñi biñ ci waxtaanee ñoom xëy na ci cadre boobu la ñu ñëwee. jébbal ñu seen euh, seen euh, seen appui muy cinquante mille francs ñu leen di également jaajëfal euh, di leen di remercier ci loolu bi xaar également yeneen bon volonté yi ci mën a jàpp pour que mbir mi en tout cas ñu gën koo mën ñoŋal gannaaw bi ñu évidemment président de la république santé comme ni ngeen ko déggee démb ci communiqué des du conseil des ministres ñu daal di def li nga xamante ne mooy désinfecter marché yi daal di saupoudrer mmh.